mel ne takk soxna boole ko bàjjanam ñuy wujje ñoom defe naa ne loolu nekkul ci alxuraan takk soxna dem jëli bàjjanam indi ñu bokk nekk ci kër gi ñoom ñaar di wujje loolu sunnaa ko tere takk soxna dem jëli ndeyam ju ndaw indi teg ñuy wujje ñoom ñaar lool tere ga nekkul ci alxuraan waaye sunna moo ko tere mbaami kër yi ñuy gis sareeti mbaam yi di dem a ñëw mbaam yi tere ga tere ñu lekk ko nekkul ci alxuraan sunna moo ko tere kon liñ bëgg wax foofu mooy am na ay atte ci sharia yu bari yoo xam ne nekkul ci biir alxuraan waaye sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo dikk moom tere ko ñi xam ne lam waxoon ne lu yàlla xaraamal ak lu yonente bi xaraamal ñoo yam te yàlla ko yonentam buñ xasee atte jullit bi sañatu la tànn ñu daal di xam ne kon atte bi noonu la tëddee wa man yuti wa man yuti rasula faqad ata allah ku topp yonent bi nee na topp nga yàlla wa man tawalla fama arsalnaaka alayhim xafida ku wane gannaaw nag toppoo yàlla toppoo yonent bi ah borom bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko ba mu dajeeg man kon daal jullit bi su fekkee dem na ba xam wàccuwaay bi nga xam ne moom la sunna am ci alquran wala mu am ko ci sharia ndax xam ne munta bàyyi sunna gannaaw ci lenn ci ay jaamu yàllaam wala ci ay pas-pasam wala ci ay doxinam te it munta dégg alquranul karim lu dul dafa dellu ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bépp woote boo xam ne dafa jóg taxaw ne ci alquran yi kese la jàpp xamal ne jëmut fenn woote bu lëndëm la woote bu taq suuf la woote boo xam ne lépp léppam ay problème lay doon ba jeex te duñ am itam fuñ ko saafaraana te it bu jóg di màbb diine la sax ndax sunna moom ko ko woon gannaaw moom sa diine màbb day màbb <coughs> tomb ba ca tegu moo di yi nga xam ne mën nañoo gàllankoor nit ki ba dox digganteem ak xam sunna wala jëfe ko rawatina nag jëfe ko yooyu ba ca jiitu ci wàllu xam-xam ak gëstu moo di li ñuy tudde tarkul ixtijaaji bi xabaril ahad fi l aqida am ci ñoo xam ne sax ma ne sa leen tudde boroomi xam-xam ñu ne li ñuy tudde xabarul ahad mooy xadis boo xam ne àggul ci li ñu tudde mutawaatir xadis boo xam ne mbooloo nettaliwu ko mbooloo nettaliwu ko jëlee ko ci yonent bi mbooloo moomee meneen mbooloo déggewaat ko ci ñoom ñooñu ñeneen déggewaat ko ci ñoom ñooñu ñeneen déggewaat ko ci ñoom ba mu agsi ci yow am na ñoo xam ne dañ ne xadis bu bu melul noonu kooku mënee su ko jëfandikoo ci wàllu pas-pas ci wàllu diine faaw rek mbooloo koy toxal jële ko ci mbooloo waaye kenn ki lu mu wóor wóor nee nañ ñoom loolu mënee su caa sukkandiku kon ma ne loolu ci gàllankoor yi tax lu bari ci sunna su fekkee ne jëfe nañ wax jooju lu bari ci sunna daf nuy faat dañ koy ñàkk loolu sun ñàkkee ay sunna yi nga xam ne moo nuy jàngal lislaam lam nuy jural mooy li nuy yor ci ay àtte ak i pas-pas da duutul doy ndax doomu aadama borom bi tabaraka wa taala daf koo seet ba xam li ko doy ci wàllu pas-pas mu waral ko ci moom li ko doy ci wàllu jaamu yàlla yi nga xam ne mën na caa laabe mën na caa baaxe man caa tabbi àjjana mu wutal ko yooyu maanaam bu doon ay mbubb da ngay wax da ko wutal mbubb mu yem ci moom muy jaamu yàlla mu jox ko bu dee pas-pas yi da ko wutal mbaxana mu yem ci moom mu jox ko ko bu dee ci wàllu taaroog jikko yaag yee ko nuru mu wutal ko dàll yu yem ca moom mu sol ko kon mu génn sol mbaxanaam ak mbubbam ak i dàllam lépp doon lu yem ci moom boole ko ak doon lu lu méngoo jamono yoo xamee nag dem na ba yooyu yi ñu farataaloon ci moom xadiis ya ko ko yotoon waaye aay wala aay alquran ya ko ko yotoon jëfeetu ko moo xam lu tax jëfeetu ko lu mën a doon moo xam ñàkk ko xam moo tax walla xam na ko waaye wax ju mel ni jii moo tax mu ne jooju mënuma koo jëfandikoo ndax matuma mbaxana daal di koy teg fële day dem ba li muy dese ci ay alxuraan ki xadis yu koy digal ak yu koy tere duutu doy duutu doy te kat aajo woon mbubb aajo mbaxana aajo woy daal kon dafay sës mooy jëlum xelam jéem a wutali boppam mbaxana jéem a wutali boppam mbubb jéem a wutal boppam ay daal te nit ki taar bi ko sun borom tabaraka wa taala wutal saa bu ko tegee fële wutal boppam ab taar bu taaroo ba génn rek ña seeni xel matut sax danañ ko reetaan ñu seeni xel matul sax danañ ko reetaan ndax léegi léeg nga gis koo xam ne la muy dund ci diine soreewut ak ku xotti woon bu bam mu rafet ba àggal wëlbatiku beyaan ko ba noppi la waroon a féete kanam mu féetale ko gannaaw génn di dox ci mbedd mi kooku bu génnee ñu seeni xel matul sax danañ ko reetaan wala mu sol lam war a sol lépp ba àggal ay dàllam mu jël wow ndeyjoor wa sol ko ci tànku càmmoñ ba wow càmmoñ bi mu ko ci tànku joor bi génn di dox am na ñoo xam ne seeni jaamu yàlla boo ko xoolee loolu lay nuru fekk la koy waral mooy benn wan gannaaw alxuraan ak sunna ngir ñàkk koo xam wala wan gannaaw alxuraan ak sunna ci kaw ne am na texte yu doon jàngale nangam ñu fexe ba ne la yooyu matul aw lay foofu nga teg ko fële su boobaa loolu la lay jural maanaam koomum xam-xam mu manqué ba tax nga jóg di wutali sa bopp xam-xam ci sam xel te am xel danaa di wax mbokk yi jamono yi nekk ne leen du jaamu yàlla am xel du indi li ñuy jaamoo yàlla ndax diine du caagi ne lu xel rafetlu lu nekk mu rafet xelum doomu aadama des koy jariñoo ci dégg diine dégg alxuraan dégg sunna dégg lii dégg lii jéem a xam jéem a jëfandikoo waaye nag bu dara des dul fent ak dolli ay jaamu yàlla ak wàññi ak yokk ak rafetal loolu xel du ko def du wàllam kenn santu ko su ca duggee rek andi njaaxum duñ ci sori lool ndax waxtu wi yaatootut lool ala xaal liñ bëgg a wax foofu moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day moom lam dund ak i saxaabaam <coughs> mooy diine ji kenn nit sax mën na koo tuxal su doonee ku wóor mën na koo tuxal loolu lañ doon dund borom bi tabaraka wa taala ngi wax ci alquran ne wa ma kaana almuminuuna liyanfiruu kaaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahuu fi ddin wa liyundiruu qawmahum ida rajacuu ilayhim laallahum yaxdaruun nee na mbooloo mu nekk war naa am ay benn benn nit yu jóge ci ñoom dem sàkku ji xam suñ sàkkoo xam-xam ñi di ko xamal seeni morom taifa li tàmbalee ci kenn la ba ci fu mu mën a yam kon foofu kenn mën naa jóg sàkku ji xam-xam ñëw xamal keneen borom bi tabaraka wa taala waxaat ne yaa ayuha alladina amanu in jaakum fasiqum bi nabain fa tabayanu am na beneen qiraa boo xam ne fa tasabbatu moo ci su fekkee ne ab kàccoor da leen a yotub xabaar wóorliku leen ba xam xabaar bi wér naam leen loolu loo ciy déggee mooy ki baax moom ki maandu ki maandu su la yiteeb xabaar nooy def jarul tabayyun ki maandu su ëndeeb xabaar jëlal te kooku kenn la boroom bi tabaraka wa taala ne fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuun laaj leen ña xam su ngeen xamul ahlu dikri mooy borom xam-xam waxul nag ne ñaar wala ñett wala ñeent waaye ku ngeen ci laaj mu tontu leen rek dana doy ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne Zayd ibnu Saabit ak ñeneen solo nañ ko muy xadis bu wér <coughs> alayhi salaatu wasalaam daf ne nadara allahu mra'an sami'a minna xadisan fa xafidahu xatta ballagahu fa rubba xaamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba xaamili fiqhin laysa bi faqih <coughs> foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñaanal dafa ñaanal képp koo xam ne dégg na ci moom ab xadis mokkal ko jottali ko keneen nee na ku déggee ci moom ab xadis mokkal ko jottali ko keneen yàlla na la yàlla jox naataange ëllëg loolu la yonent bi alayhi salaatu wax ne nag bari aana sax kuy jottali xam-xam te fekk xam-xam booba ñëw xóotoo ca lool waaye nag mokkal nga ko jottali ko keneen ki nga ko jottali te xamu ko woon amaana mën naa ñëw ci moom mu xool ko moom wëlbati génne ci ci ay xam-xam yoo xam ne yow mi ko ko jottali sax bàyyi woo ci woon xel kon jottali gi day wane ni yiw wu rëy mën na cee mën ngaa jottali nit xam-xam ndeke moo la ëpp mu génne ci ay njariñ yu baree bari waaye foofu lan fay jariñu rek noonu mooy kenn ki kon mën naa mokkalu xadis jottali ko keneen kon bu nit dikkee ne la ab xadis ngir ñu mën koo jëfe faw mbooloo ñoo koy tuxal ñi door koo nangu loolu moom doonut loo ne lu yanu maanaa la doon yonente bi alayhi salaatu wasalaam buy wax ne bilaal bu noddee xaar leen ba ibnu ummi maktum noot ndax bilaal guddi lay noot bu bilaal noddee mën ngeen a continuer di lekk di naan ndax mooy nootu nodd gu jëkk ci yooyu jamono mën ngeen di lekk di naan ba ibnu ummi maktum noot su noddee na ngeen door a jàpp kon noddkat ba kenn kuy nodd la te boo ko déggee ay atte sharia yu bari dana ca tegu mooy dalay yëgal ne waxtu julli wa jot na nga gëm ko te kenn la koy wax bu boobaa bu dee koor nga ca doon def yëg bu yëkkatee kàddoom nodd nga daal di jàpp duutoo sañ a lekk te noddkat boobu koy wax benn la bu ñu demoon ba timis di jotit mu nodd nga daal di dog sa koor te fekk yaa ngi ko dog ci kaw nodd googee nga dégg te kenn dong kuy nodd la te mosuñoo dañ nag ba lislaam amee ba tey noddkat ba jullit yi di déglu nodd ga nodd googee ñu cay teg ay atte sharia te jenn jëmm dong la juy nodd néewuñ dañuy xaar ba ñaari noddkat nodd wala ñett nu door koo gëm saxaaba yeet loolu lañ doon dund te mosuñoo toog mukk di am benn sikk sàkka ci ne xadis bu wér des koy jëfe donte ki ko toxal kenn la wala ñaar la wala ñett la waaye mosuñu ci sart mbooloo même yonente bi alayhi salaatu wasalaam leetar yi mu daan bind am ay buur ak i njiiti réew yu mu doon dundal di leen woo ci lislaam leetar yooyu ay benn nit ñoo ko doon gàddu di ko yóbbu ca kooka buñ demee jox ko ko woo ko ca lislaam te kenn ku nekk xam na ne loolu euh, euh, aw lay da caa tege moo tax mu mën a nekk leetar bi mu yónde woon xirafl kenn ku nekk xam na ne euh, ki ko yóbbu woon moo di Dihya ibnu Xalifa al Kalbi leetar bi mu yónde woon Kisra it mu nekkoon buuru Perse yi ci jamono yooyu Abdullah ibn Xudaafa moo ko yóbbu woon te kenn ku ci nekk kenn nit la te woo wootab lislaam moo ca nekk kon pas-pas moo ca nekk kenn ci saxaaba yi musta wax ne xabaar bi du ma ko jëfe li feeg demuma mukk ba mu wóor ma ne yonent bi ba mu wóor ma ne mbooloo ñoo ko toxale ci yonent bi ma door koo jëfe Buxaari li na jële ci Abdullah ibn Omar ibn Xataab mu ne benn bés nit ñi dañoo nekk Qubaa di julli jullik suba di julli julli suba ci jàkkee xubaa benn waaye daldi di yéene daal ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day ci guddi alquran wàcc na ci moom digal ko ne nañuy jublu màkka ci julli gi nee na fekk ñooñu ña nga jublu woon baytul maqdis maanaam bu fekkee nii lañ jublu woon wëlbatiku nañ kon jublu nii muy safaan ba ca wetu càmmoñ lañ jublu woon noor lañ jublu woon wëlbati ko jublu wetu ndeyjoor mooy la tudd sit ci biir julli gi te benn waay rek moo yéene néewuñ nan xaar ba mbooloo wax ko door koo gëm waaye kenn ko yéene ñi daal di wëlbati ci biir julli ga jublu safaanu fañ jublu woon xadisu anas ibnu malik nee benn bés lu jiitu sàngara di xaraam damaa toog yor taxi taxi ñoll yi di ko séddale abu talha abu ubayda ubay ibn kaab ñuy naan ma di leen jox ñu jekki ba mu yàgg ñu dégg ku yéene ala inna alxamra qad xurrimat ku topp mbett yi di wax loolu yëg leen ne sàngara xaraamal nañ ko nee na abu talxa ne ma gaawal anas dajale tax yépp toj nee na ma dajale tax ya fa nekkoon yépp daal di koy toj fi saas te mënoon nañoo toog ne ah loolu de ab xabaar la waaye kenn ko nettali nan xaar ba mbooloo wax ko nu door koo gëm wala ginnaaw yonente baa ngi fi nan jóg dem laaji ko ko sax ba xam waaye yooyu yëpp ñu xam nañ ne xabaaru kenn ginnaaw ku maandu la des na ko jël des na ko jëfandikoo ci diine Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu nu mu doon jàngee moo benn dëkkandoom boo xam ne dañoo yoroon seenu liggéey seeni tool te bëgg dañoo jàng seen xam ne ni nuy def mooy nanuy ay ayloo Omar ne ko su ma xëyee liggéey ca sama tool yow xëyal ca yonent ba sallallahu alayhi wa sallam lépp loo fa jànge bu ngoonee ñu daje nga jàngalaat ma ko man itam bu ca ëllëg saa maay xëy ca yonent ba alayhi salaatu wasalaam yow nga xëy ci sa tool noonu lañ doon dunde ñoom ñaar ku fa yandu ba ngoon nga dikk la nga fa jàng nga jàngal ko ko ca des ba ëllëgee nga xëy liggéey kooku aw yoon wu rafet la ci jàngal nit ñi yoonu fan lañu war a mën a jaar ba boole liggéeyal suñ àdduna ak jàng suñ xam-xam te su fekkoo ne nag xabaar ba jóge ci yonente ba faaw mbooloo koy tuxal nga door koo jëfe kon Omar ibnul Xataab ak dëkkandoom joojee lañ doon tuxal di ko indil seen morom kon loola du wér ndax kenn na ko tuxal kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax bunt bu gudd a gudd la waaye incha allah liñ ci bind xëy na euh, mbokk yi danañ ko mën a jël bu soobee yàlla li gàttal ga daal moo di li ñu tuddee xadiisu ahad muy xadis boo xam ne àggul ci mbooloo toxal ko su fekkee ki ko toxal maandu na charte yi daje ci xadis bu wér daje na ca kooku bu ñuy jëfe lay doon danañ ci def aqida muy wàllu pas-pas danañ ko jëfee ci buntub jaamu yàlla yi muy julleeg la nuroog moom danañ jëflanteeg moom ci buntub jikko yi nga xam ne moom la lislaam jàngale moo moog li wér lépp a yam te it yaqiin la jullit ba di am ci ne lii dafa wér loolu lu mat a bàyyi xel la même nit ñi sax seen jëflante yi ñuy jëflante xam ngeen ne nit du toog mukk di waxtaan ci jataay ba mu yàgg ñu ne ko kaay yow de sa kër maar day taali ma ngay làkk nga ne ah lii de kenn rek ko wax damay xaar ba mbooloo wax ko ma door koo gëm kenn mos koo dégg su ko kenn waxee rek doo toog sax di xool ba xam kii ku wóor la am ku wóorul naka nag ki la toxalal sa diine ki la toxalal sa diine moom it bu dee kenn faw jëfe gi noonu rek la war a demee te it ki la wax ne yéen ñi gëstu xam-xam ki ñëw ne la xadisul ahad duñ ko jëfandikoo ci pas-pas fexe ba bàyyi loola xadis yu dul jeex ndax kat xam leen ne yu baree baree bari loo xam ne noo ngi ko fas tey di ko wax boo seetlu woon xadis yi ko wax xadis yu kenn toxal la te ñu ngi ko boole ci diine ji di ko jëfe yooyu bokk na ci lépp lu jëm ci azabul qabr mbugalum bàmmeel lépp lu ci jëm xadis yi ko tuxal xadis yi kenn nit la déegu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ku ca naan duutoo mar ba faw moo xam tur wa ndax mooy kawsar ji rot ci alxuraan wala weneen tur la yor waaye ñu xam ne li ñu ko nettali ci ay xadis ahadisul ahad la mooy yu kenn kenn tuxal la waaye du xadisu mbooloo jële ci mbooloo buñ ko doon topp am na lu mat ñaar fukki pas-pas ci buntu aqida ak juróom yoo xam ne tey noon ko fas gëm ko di ko dund di ko yaakaar ëllëg mu war a ñëw te li nu ko nettali du xadis mutawaatir xadisul mutawaatir su fekkoon ne moom dong moo nuy jàngal pas-pas kon suñuy pas-pas du doy ndax boroom xam-xam yi taalif ci bunt boobu ci mutawaatir muy xadis yu mbooloo toxal jële ko ci mbooloo ñu xam ne ñi ci taalif ñi ci gën a bari le liñ dajale ci xadis ëppul juróom fukki xadis ëpp juróom fukki xadis kon juróom fukki xadis wax dëgg yàlla li jullit yi war a fas lépp ci ay pas-pas loolu waru caa mën a nekk kon bunt la boo xam ne euh, jàngkat yi gëstukat yi war nañ koo gëstu bu baax a baax ñu xam ne lu bare bari lu nuy dajeel ci téere yi yër ñu ne la ah kooku moom euh, la yufidul yaqin parce que xadisul ahad la mëne su ciy jële yaqin mëne si ciy jële lu wóor ba di ci fas dara kon ñu xam ne loolu wax la joo xam ne wax ju yàqu la te kooku bu fekkee ne loolu ci boppam pas la maanaam loolu mu jàngal nit ñi ci boppam ne leen xadisul ahadis ci jële pas-pas loolu ci boppam pas-pas la fan la jële lu nekk mutawaatir moom lu ko saxalal loolu ndax dafa am xadis bu nekk mutawaatir moom boo xam ne mbooloo ko tuxal ne ko bépp xadis boo xam ne kenn na ko tuxal xamal ne loolu mun te nekk pas-pas amu ko kon kooku tanaqud la maanaam contradiction la boo xam ne moo koy dund ñaareelu tomb bi ci yi gàllankoor nit ñi ba duñ jëfe sunna ñu gàttal ko ndax li ñu dese tuuti la moo di la ma jiitaloon bi ñuy tàmbalee mooy jàpp ne mën ngaa doyloo alxuraan bàyyi fële sunna mën nga bàyyi alxuraan jàpp fële sunna defe naa ne loolu li weesu ci gannaaw leeralal nu ne leeralal nanu ne alxuraan ci boppam mënee su jàpp bàyyi sunna ndax ku ko def doo mën a julli doo mën a woor doo mën a génne asaka doo mën a aji yooyu yépp muy ponki lislaam yu leer naññ la ko leeral moo di sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pas bu wér ci ëllëg sax al àllaaxiraak la ca ajoog la ko nuroog la ngay yaakaar ëllëg ak say jaamu yàlla lu mu lay jariñ ak yooyu yépp ngir nga mën koo jariñu da ngay dellu ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon doyloo alquran doonut loo xam ne xalaat la boo xam ne bu ma nee sa euh, teg fenn la alquranul karim téere la boo xam ne bu mat sëkk la borom bi tabaraka wa li mu ci def lépp lu mat sëkk la waaye nag nam mate dafa jël boole ko ku koy saraa koo xam ne dana ko téere baa ngi wàcce naa ko ci yow wax yu naa la yit weneen wax yi woo xam ne moom ngay jëfandikoo di ko leeral mu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu dikk ànd ak nit ñi di nit di kenn ci seen biir di di dund lañuy ñuy dund di lekk di naan di am ay soxla di jóg di dem di ko doxi takk ay soxna di yor ay doom di di tawat di ñàkk di am di feebar di wéraat doon kenn ci seen biir yey dal nit ña di ko dal doon koo xam ne it mbiram dara nëbbuwu ca léppam leer na ak yonent ci yi gën a metti ci yëf yi ci la bokk ak yonent léeg-léeg booy jàng dunduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg yow sax da àgg ci xadis boo xam ne dafay xaw a rus nga yëg ne lii metti na yan bii bu diis la ndax koo xam ne sa lépp dañ koy gëstu ba ci sa biir kër ak roq ya gën a xóot sa digganteeg ña la gën a jege na ngeen di dunde ak la ngeen nekk ñi di ko wax jëri ko bind ko ci téere yi nga dugg ca wana wa ñi topp ci yow looy wax sooy dugg ci wana bi soo fa nekkee ca biir sax fooy jublu fan la sa xar kanam di jublu te yaa nga ca wanaw di faj sa soxla ñu fexe ba xam ko bind ko ci téere génne ko ne yonent ba kat ba nekkee ca wanaw fii la jublu woon ah wax dëgg yàlla boo ko seetloo ci kuñ jëloon sa baay wala sa sëriñ ba nga gën a fonk di ko topp di ko topp ba ca wanawa ñuy bind baayam kat ba mu duggee ca wanawa wala sëriñam ba kat ba mu duggee ca wanawa ba muy bëgg a dugg lii la waxoon ba mu nee ca biir wanoo nangam la doon wax ba mu génnee tànkam la jiital ba mu génnee nangam la wax topp googi ab yonent rek lees ko mën a def mu muñ ko waaye nag la ko waral lenn la daa mënta ñàkk ndax suñ xamul lam doon def nit ñi duñ ko mën a def duñ ko mën a def te borom bi tabaraka wa taala dafa ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kii laa yabal ngir ngeen war koo roy kon faaw nu xam li muy def moo tax nag ña ko fekkee woon it nag am fulla topp ko fu mu dugg ñu dugg fa lu mu wax ñu ne ko loolu loo ci jublu fexe bi lépp leer ñu toxalal ko nit ñi ndax ñi mën koo roy keneen ku dul kooka nag mën ngaa mucc ci loolu lu tax mooy sa yenn yu sew sewaat nit ñi aajowowuñ di ko xam ndax kenn toppaloowu leen ko ginnaaw kenn toppaloowu leen ko nag ñëw di ko gëstu ak tooñ lay daal di bëgg a doon ak tooñ lay daal di bëgg a doon ndax kenn soxlawu ko kon loolu lu mat a bàyyee bàyyi xel la yonent boobu sallallahu alayhi leeral ko gi mu leeral alquran ba mu leer ci la nit ñi mën a dunde seen diine yal na nu ko yàlla fayal ak saxaaba yi nga xam ne ñoo nu ko doon tuxalal ba mu mën a agsi ci nun ba mu mën a xam loolee mu doon dund lu mu doon des na yeneeni gàllankoor yu bari yoo xam ne danaa tudd rek seeni tur nii waaye leeraluma ko ndax waxtu wi jeex na ñetteel bi mooy li ñu tudde ak taassurul li ñuy wax fanatisme muy ak farloo nga xam ne nit ki mën naa dem ba waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mën koo méngaleeg waxi keneen wala su yonente bi waxee wax keneen wax nga mën a tànn waxi kooku bàyyi wax yonente bi sallallahu alayhi kooku fanatisme la boo xam ne yàlla ci yàlla musal beneen bi mooy nit ki mën naa dem ba jiital am xelam ba suñ ko indiloon ab xadis da lay wax ne bii xel nanguwu ko li xel nangu mooy nangam ak nangam ak am yooyu ci yi tax nit ki bañ a jëfe sunna wala mu won ko gannaaw ci la bokk bu ko nangoo it mu jiim koo soppi jox ko meneen maanaa interprété ko ba mu yor meneen maanaa mu bokkut ak mi ko taxoon a jóg yooyu ci gàllankoore la bokk wala li ñenn ñu réer ñi di wax nga xam ne dañoo jàpp ne xadis bu jógewut ci ahlul bayt rek du doonub xadis am na ñoo xam ne foofu lañ toll ci diine mooy xadis bi bu ñu xoolee ñi ko solo buñ ci gisee kenn ku bokkut ci askanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekkoon loolu du xadis bu wér moo tax ñooñu am nañ problème bu mag a mag ci am xadis bu wér muy chia yi ak ñi leen topp léeg-léeg boo demee ci téere yiñ gën a wóor wóolu nga mooy yi gën wér lu mel ne téere bi ñuy wax alkaafi lil kulayni li ëpp ci ay sanadam da ngay ci ma xaddasana iddatun min asxaabina mbooloo mu bari daal nee nañ ñooñu ñu mu doon kenn xamut ñi mbooloo mu bari ma ñu mu doon parce que mu ne su leen tudd bu ñu leen tuddee te bokkuñu ci alul bay kon xadis ba dootu wér te xam na ne bokkuñu ci su ko defee danaa mbooloo nee na mbooloo nee na loolu du xam-xam maanaam fexe ba dugal sa bopp ci guta mooy loolu mooy fexe ba teg charte boo xam ne xam nga ne lii boo ci tënkoo sa diine du doy nga bëgg koo génn nag te mënatoo koo wax ndax ñéeg nga ba noppi mënoo ne charte bi ma defoon soppi naa ko su ko defee la fa mooy mbooloo nee na rek kon yëmale ko foofu euh, des na yeneen yëf yu kii di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain barakallahu fiikum wa zaadana wa iyaakum ilman naafian wa waffaqana lil amali saalih ñu ngi sant mbokk mi nga xam ne moom lañ doon déglu muy cheikh docteur Mouhammad Ahmad Lo yaakaar naa waxtaan wi euh, jarut ñambaas jarut itam nëxal ndax jombut lu ma ci teg rek nëxal lay tudd xanaa kon ñu jéem a li des ci waxtu wi rek di jublu ci euh, laaj yi nga xam ne moo fi jot a ñëw <clears throat> euh, am na rek loo xam ne dafa xaw a dëppoog waxtaan wi te mu romb ma bu yàggut dafa am xadis boo xam ne benn waaye dafa ma ko won xadis bi nee nañ Umar ibn moo ko jële ci yonent bi waaye xadis ba dafa mujj def ma ay ree ndax fa mu tàmbalee mooy man katabaha aw allaqaha xafidahu llahu min isnata moom sax isnay ashara la bind isnay ashara musiba nga xam ne lañu ñu war a takk la loolu moom gaw ma ne bu ko Omar nettali woon ci yonent bi euh, dana nëbboo noonu waaye musiba yam doon lim ak mbind mi li muy doon doon arab dama caa gis baat boo xam ne daanaka moo leeral lépp ndax ba muy lim musiba ya da caa boole wala fetal loolu nag moom gëw ma ne Omar déggoon na wolof kon xadis boobu moom mbiram leer na wala fetal ja moo gën a leeral lépp euh, jëlee na maanaam euh, mbir moom aram gi mu aram euh, beneen bi mooy li docteur doon wax mu jëm ci xabarul waaxid ñi wax ne xabarul ahad la yuxtaju bihi fi l aqida Shamsuddin Ibnul Qayyim daf leen a këpputal foofu ndax dafa wax ne ñoom seen wax jooju xabarul ahad la moom lañuy ñuy njëkk bàyyi duñ ko gëm mu des nag waxi yonent bi moom des ak nun waaye ñoom li ñu wax ne xabarul ahad la yuxtaju bihi fi l aqida wax jooju ci boppam xabaru ahad la ndax nekkul loo xam ne mu mutawaatir la kon ngir jëfe wax jooju dañuy weddi wax jooju ba noppi buñ ko weddee nag sharia mucc kon euh, nañu ràññee bu baax pexe yi nga xam ne seytaane dina ko fexeel ñi jëm ci yàlla kon lum man mu def ko ci te mooy wala tajidu aktharahum shakirin ne woon na yàlla subhanahu wa taala li ëpp ci sa jaam ni dana fexe ba duñ la wéetal duñ la jaamu duñ la sant ma nga ca nag ma nga ca moo tax yowmal xiyam buy xutba ñi ko toppoon daanaka mbëlee la leen di wax wa ma li aleykum min sultaan mu ne man kat daawuma leen leel suukar nag dama waxoon rekk lu dëppook seen bànneex ngeen topp ca kon bis ni ki tey mbëllee yal nañ ci yàlla musal kon ñu ñëw ci li fi jot a ñëw ci ay laaj waaye ndegam waxtu wi xat na xam naa dañ ci cof rek laaj bu njëkk bi ki day wax ne kayfa najma'u bayna qawlihi ta'ala laa yukallifu llahu nafsan illa wusaaha wa bayna nafyika li kalimati takalifi sharciya mu ne nan la ñuy boolee li sunu borom wax ne yàlla du teg bakkan lu mooy lam àttan ak lim dégg ci waxtaan wi ne sharia ay coono nekku ci alhamdulilah euh, maanaam nafyuwuñ maanaam dàquñu ak takaalifu sharciya dàquñu ko waaye li ñuy dàq mooy nga déggee ca ne ay yan yu nit ki àttanut la yoo xam ne su koy joxee daf ci war a ànd ak aw tiis waaye su koy joxe na ca ànd ak mbég maanaam bu mu jàpp ne ab yan la boo xam ne la ca boroomam jublu rek mooy metital ko waaye na koy joxe fekk mu ngi ci ànd ak féexub xol ak mbég ngir xam ne lii boroomam daf ko ko jox ngir njariñam waaye jubluwuñ ne dàq takalif shar'iyya te it laa yukallifu llahu nafsan illa wane wanewaat na woyefal gi nga xam ne suñ borom tabaraka wa taala daf ko ko woyefal ndax kooku boo xoolee naf yu taklif la gën a jege maanaam alxuraan ji dafa dàq ne yàlla du yan kenn yan bu diis te du fekk moom yi da koo attan yan bu diis te fekk du da koo attan xam nga li nga attan diisatul ci yow ka koy gis mu diis ci moom mooy ka ko attanut waaye yow mi ko attan kon lu woyof ci yow la kon lañ doon wax noonu moo li aay ji di wax ñoo ànd moo di boroom bi tabaraka wa du la yan mukk loo xam ne loo attanut la te lim la yan danga caa war a am mbégte jamono yi nga koy yanu ndax dañ laa tàllal la nga mën tànnal la ko nga yanu ko di ko joxe am ca mbégtem ne da nga ci am ngërëmal sa boroom bu sellee am ca mbégtem pay ga ca nar a ëllëg wallahu a'lam jazakumullahu xayran kii day laaj qawluhu taala wa ma ataakum rasulu fa xuduhu nee na laaya boobu dañoo wax ne ci fay rekk la wàcc mu ne ndax loolu lu wér la dëgg la boo xoolee si yàqu yi ko jiitu day waxtaan ci li tudd ci li ñuy wax fay muy li nga xam ni jullit yi dañ ko jële ci noon yi noonu yañ séqaloon ab xeex am na alal ju jóge ci jullit ya ñëw ci ñoom ci lu dul ab xeex amagun maanaam xeex ba amagun daal jële nañ ci ñoom alal aay alxuraan yi ci lool la doon waxtaan ba àgg nag ci ne wa ma aataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu boroom xam-xam yi gëstu ci usul yépp dañuy wax ne maa ji nga xam ne ismu mawsul la ci yow mi jàng naxu bu ñëwee umum lay jariñ maanaam maajoo ji nga gis daal la muy firi mooy lépp kon wa ma ataakum rasul mooy lépp loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andil na leen ko jël leen ndax lu mu leen andil rek lu baax ci yéen la kon foofu dëgg la la jiitu woon mu di ca wax muy fay u boobu ngeen wax mi ngi ci biir waaye nag gën naa yaatu loolu te loolu sharia day waxe noonu léeg-léeg ab atte day ñëw mu di ca wax indiwaale beneen atte boo xam day waxati lépp lu demee ci nii rek def leen nangam su ma la ci doon jox misaal mooy xadis bi nga xam ne day wax ci bisub àjjuma te nit ñu bare bari di ko di ko tumurankeloo mu di bu imaam dee xutba kenn waratu la ku dugg ci jàkk yi danga nga war a toog waaye waroo julli ñaari rakka benn bi saxaabi bi bu ñuy wax Sulayk al-Ghatafani dafa dugg si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séen ko mu dugg rek toog mu dagg xutba bi ne ko ndax julli nga ñaari rakka mu ne ko déedéet mu ne ko jógal julli ñaari rakka daldi ne delluwaat ci xutbaam daldi ne su kenn ci yéen duggatee ci jàkka fekk ilimaana ngay xutba na julli ñaari rakka te waye fal ko xam nga fële kenn buñ te wax ne kon xadis bi li ko tax a jóg mooy su lay képp képp moo ko moom ndax wax naa ak moom ba noppi ci moom ne ko jógal julli ba àggal wëlbatiku na jox benn ordre boo xam ne xeet wépp ko bokk su kenn ci yéen duggatee jàkk bu ëllëgee na def nangam kon laaye ji su fekkee ne daa fekkoon aaye ji di waxtaan ci buntu fayu muy alal jay jóge ca noon ya di ñëw ci jullit yi itam bi mu demee ba àggal daf ne lépp lu leen yonent bi indi la ti jël leen lu mu leen digalati def leen lu mu leen tereeti bàyyi leen wallahu am naam jazakumullahu xeyran amin Euh, kii nee na ndagam yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ne balligu anni walaw aaya na ngeen jot li jële ci man doon ci benn laaya la nee na ki xamul xadis bu wér ak bu wérut ndax sañ naa def waxtaan ci diine xam nga xam xadis wérul dafa am ñaari maana su fekkee ne àgg ci xam-xam foo xam ne mën naa gëstu ba xam la wér ak la wérut ci effortu boppam loolu lu jafe la ab niveau bu kawe la ci am njàng mu xóot la itam yombut waaye nag ki jàng ba fexe ba mën a xam ab xadis bu wér mu wóor ko ne bii mu yor wér na loolu yomb na nu mu mooy mën naa dem ci téere boo xam ne wóor na ko ne lu ca nekk wér na muy téere bu mel ne Buxaari ak Muslim soo ca génneeb xadis wóor na la ne bii wér na wala jaare woowu yoon waaye jël nga sa xadis dajale say xadis jox ko boroom xam-xam boo xam ne moom mën naa xàmmee la wér lu wérut mu xool ko ne la bii wér na bii wér na bii wér na nga daal di jël sa xadis yooyu dem def ci waxtaan li am solo mooy bala nga ko waxtaane rek toppatoo ko ba mu wër la ne wér na ba àggal nga door ko waxtaane moo xam nag ban moyen wan yoon nga jaare ba xam wér na wala wérut waaye loolu du tax ma noppi moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi muy wax jot ligi itam ñam koy waxal muy jottali leen ak lu mu tuuti tuuti na fekk mu xam ne wér na ba noppi na ko toppatoo bu dee alxuraan moom alxuraan la wóor na wala aaya la wax foofu wóor na waaye nag bu dee xadis itam na góorgóorlu ba mu wóor ko ne bii bu wér la mu door koo jottali wallahu alam ki nee na day liggéey ci ab dëkk soxnaam nekk ci beneen dëkk mu ne nag ndax dina dagan ci moom muy wàññi julli ci benn ci ñaari dëkk yi ndax diggante ba mat na tukki ni ñuy faral di wax di ko dégg lool lool moo di nit ki fu soxnaam nekk du fa doon gan waaye oxu nit ki fu soxnaam nekk dana fa doon gan fa nga xam ne dëkkoo fa fa nga dëkkul yow foofa gan nga fa boo fa tukkee tukki bu mat ab tukki foofa musaafir lañ lay tuddee yaa ngi dëkk fii fi Tuubaa am nga soxna fa Louga soxna sa kër gam nekk du sa kër kër baayam la nekk nga jóge fii fi tuubaa dem Louga fekk soxna sa ca kër baayam gan nga foofu ba ba ngay ñibbi bu la neexee booy julli mën ngaa wàññi julli su fekkoon ne nag yow da ngaa am kër Louga am kër Touba soxna nekk fii soxna nekk foofa nga jóge fii dem foofa boo ko wàccee ci sa kër nga wàcc boo ñëwee fii itam ci sa kër nga nekk waaye nag boo nekkoon ci diggante bi waxtu julli jot yaa ngi ci biirub tukki su boobaa su la neexee nga julli julli kuy tukki fekk yaa nga ca diggante Touba ak Louga waaye soo xasee àgg moom dugg nga sa kër naam day laaj ma xukmu shurbi bi shimal nee na naan loxo càmmoñ luy àtte bi xanaa ak lekk itam waaw naan ak lekk moom ci loxo càmmoñ ak joxe ak nangu yooyu yépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ko dañoo wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nday jooru dafa doonoon lu mu bëgg lool ci lépp loo xam ne lu laab la lépp loo xam ne lu laab la wala mu ànd ci lu ñuy yaroo di ci teggiinu nday joor da ko caa yéemoon lool moo tax lu baree baree bari ci ñi nga xam ne dañoo yaruwut yarub lislaam suñ toogee ci taabal di lekk defe nañ ne bokk na ci ak xay sa loxob càmmooñ moo war a yore fourchette bi loxo ndeyjoor bi yor paaka bi su ko defee ngay dagg di lekk ci sa loxo càmmoñ loolu beneen yar la bu bokkut ak yarin bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon yare ba mu xale ba mu mu rek di sànni loxo bi ci biir ndab li daf ne ko yow xale bi lekkeel sa loxom day joor te lekk ci sa kanam lekkeel sa loxom nday joor te lekk ci sa kanam kon loolu aw yarin la woo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ab yaram dafa yaatu ba ñëpp ngi ci biir gone yeeg mag ñeeg ndaw ñeeg ñëpp lekke loxom day joor moom lañ santaane boo dee naan nga naane sa loxo nday joor boo dee joxe nga joxe sa loxo nday joor boo dee nangu nga nangoo sa loxo nday joor bu dee yeneen ngay jëfandikoo nag yu laabut yu laabut comme kuy defaru wala muy defaree loxob càmmoñ ngay jëfandikoo bu boobaa defe naa ne li ma bëgg wax leer na mm-hmm. wallahu alam kon jàll ci beneen jazakumullah euh, kii day laaj mu ndax euh, waat ab sikkim dafa araam yonente bi alayhi jullit yi ñu bañ a wat seeni sikkim tere na leen itam ñu wat ko maanaam digal daje na ci ak tere moom ci boppam itam dund na di garder ab sikkimam ba ni mu génne àdduna saxaaba yi doon def noonu ñoom itam ba ni ñu génne àdduna risalatu bne abi zaydin al yi bii nga xam ne moom la jàng fii ci fiq ba mu demee ba ca fa mu tudde al aadaab nee bokk na ci teggiin yi nga xam ne ab jullit daf ko war a melowoo moo di ab sikkimam daa war a wattandiku di ko wat kooku moom ku jàng risaala ku nekk jaar nga ca allahu alam jazakumullah xeyr kii day laaj mu ne ndax e, nit ku génn àddina ñu di ko jàngal al quran lan mooy àtte bi ci lislaam ala kulli xaal ci diiney lislaam buñ fàtte de am na aslu boo xam ne mooy xayrul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li gën ci yoon wu ab jullit di suubu di ca dox mooy yoon wi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon defe naa loolu jullit yépp d'accord nañ ci wala am na kenn ku xam ne ku d'accordut la am na ku d'accordut ne yoon wi yonente bi jaaroon moo gën ci yoon yi ñaareel bi mooy kenn ku nekk xam na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xeet wi moo ci ëpp yërmaande bil muminina raufur rahim la yàlla wax nee kii ku am yërmaande ci jullit yi la kooku defe naa ne lépp lum xam ne bu ko defee lépp jullit dana ko jariñ dana ko def wala déet kay saxut ne benn saxaabi yu mas naa faatu ci kaw suuf yonent bi alayhi salaatu wasalaam woo saxaaba yi ñu daje jàngal ko alxuraan mustaam ku ko gis rek nga dimbali nu ci baaxe na ko foo ko gis ci téere ñu ne la yonent bi ab saxaabi yi mas naa faatu ñu daja di ko jàngal alxuraan indil ma ko kooku ndimbal lu rëy lay doon ci noonu ndax nu mën koy def ndax nu mën koy def kon loolu gisee su ko te ku am yërmande ci nit ñi la su fekkoon ne loolu da ko jariñ kon dana ko def waaye def ko kon nu dellusiwaat ca qaayida ba mooy xayrul hadi hadiyu muhammadin sallallahu li gën ci yoon yi mooy yoon wa yonent ba jaaroon kon la jaadu mooy jaar ca yoon woowa waaw kon ndax néew bi dañ ko dul ñaanal oo oh, kay dañ koy ñaanal nuñ koy ñaanale julleeg néew gi ñaanal la li ñu bari bàyyiwut xel jullee néew boo kàbbaree fatiha ngay jàng ñaareel ba fatiha jooju li tax nga koy jàng nga bàyyi ko xel moo di li ñu tudde kerkeraanu mooy jiital jëf ju baax door a def la la tax a jóg ci la bokk ñaareelu kabar ba julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kuy bëgg a ñaan ku ne rafet na nga julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ñetteelu kabar ba nag ginnaaw kerkeraanu nga ci alquran muy fatiha bi ndey alquran kerkeraanu ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sa ñaan am na yaakaar léegi kon ñetteelu kabar bi nag nga ñaanal néew bi ñaan googi boo ko ñaanee ba mu jeex nga kabaraat sëlmal kooku ñaanal nañ néew bi ba noppi la ca des nag mooy di ko jéggalul di ko jéggalul buñ ko dencee ba àggal yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana geesu nit ñi ne leen seen mbokkum jullit ñii day fii mu toog ñi ngi koy laaj jéggalul leen ko yàlla te ñaanal ko aw layam dëgër kon loolu jaadu na jullit yi di ko def suñ dencee nit ba àggal ñu jéggalul ko ñaan yàlla dëgëral aw layam ci kanam ña koy laaj leneen lu ca des mooy gannaaw bu loola jàllee ma nees na koy ñaanal foo ko fàttali ko nga ñaanal ko foo jullee ñaanal ko rawatina ña doonoon ay bokkam ay doomam yu mel noonu ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne ku génn àdduna sa jëf jépp dagg na maanaam dajale nañ carnet ub dencal la ba ba ngay ñëw ba yowmal xiyaam ba mu des ñetti yëf yooye mu boole ci doom ju baax yoo xam ne da ko fe bàyyi woon yar ko jàngal ko alxuraan ba mu jub mu jóge fi doom jooja di ko ñaanal loola moom dana ko fa fekk ñu koy dugalaat ca carnet ba ba kër yow ma am di taxaw ñu booleel ko ca aw yiwam kon ñaan koo googi ñaan bu am solo ñu bañ a fàtte ci loolu ñaan te xamit nag aw ñaaniin xamit aw ñaaniin ñu bari <coughs> damay wax ne wàllu yi ak nit ñu baax ñi léeg-léeg dama naan yàlla ba ci cat cat da leen a dugg ndax iblis ay pexeem dafa dafa sori iblis li lii ab liggéeyam ci kaw suuf mooy réeral nit ñi ba duñ jaar ci njub suñ faatoo it nañ tàbbi sawara wala même suñ demoon ba seen i daraja ne nar a kawe sax na daraja yi wàññi ko léeg nit ñu baax ñi nga xam ne nit yàlla lañ ñu baax léeg-léeg suñ diggante ñoom dañuy fàttale fàtte ne lu baax du doy au lieu nu di leen ñaanal buñ ko tuddee nu daal di ne yàlla na yàlla taas ci seen barke mu jeex loolu yow ci sa bopp nga nekk waaye waaye bu la yàlla di taas ci barke bi ñaanal ko nag moom it bu fekkee ne soxla woon a ñaan googi ci bëgg a mucc yàlla musal ko bu dee ku bëgg a dolli kuy daraja bëgg a dolli kuy leer yàlla dolli koy ay darajaam ak i leeram waaye bul ne rek yàlla na ma yàlla taas ci barkeem mu jeex kooku yow ci sa bopp nga nekk boole ko ci nag naam jazakumullah xeer <coughs> kii day laaj nee na julli ci ginnaaw koo xam ne day weddi sunna ndax dagan na ku weddi moom du mën a julli sax <laughs> ku weddi sunna du mën a julli ndax fu muy jaar faw bu taxawalee dana am nu mu def ci biir julli gi ci boppam rek ci lay koy jëkk a conditionné ba mu xam ne moom weddi sunna mënta nekk amma yi nit ñi di wax ci làmmiñ yi nag di wax di jëmale nangam sunna nangam fii nangam di xuloo ci yoon yi loolu ñàkk a xam lan mooy sunna moo ko waral waaye sunna jullit bu ko xam doo wax sax di wax lu nuróog weddi ko ndax boo ko jiimee weddi wala nga wax lu nuróo lu koy weddi mooy li muy tekki lislaam ci boppam ngay weddi te loolu moom ab jullit ko def kon nag ki nga xam ne dañoo war a wax rek ki nga xam ne dafa sàggan ci sunna da cee sàggan maanaam mënu koo weddi waaye xëy na daal am na sunna yu baree bari maanaam roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu baree bari moo xam ci pas la moo xam ci yàlla yi moo xam ci comme melokaani bitt yi la waaye sàggane na roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi jiite nit ki jiite moom la ñuy xool lislaam fenn lay xool ci ki jiite ndax julli gi wér na wala wérut waaxu nga daal dugg ci jàkka am na jëmm ju taxaw di jiite dégg nga alxuraan ji muy jàng mu wóor la ne alxuraan la ju leneen jaxasowul bi mu rukkoo rukkoo na ba teg ay loxoom ci bëti wóomam ba àgg bu wóor siggiwaat li ñu bari dul def am na ñoo xam ne bu ñu rukkoo rek dañ fay teggee rukkoo ba noppi dellusiwaat door a sujjóot mu wóor la ne jullee ngi koo xam ne alxuraan ji mat na rukkooya jóot ya mat na fi ñu war a taaya toog na fa lu mat taaya sëlmal jot na mu sëlmal lislaam dala ne kooku mën nañoo julli ci gannaawam néewuma la nag gëstul ma ba xam kooka luy pas-pasam lislaam néewu la seetal ba xam jàpp naam jàpput loola sa yoon néewu ci biram la su pas-pasam baaxee digganteem ak boromam su fekkee ne sàggan na ci sunna digganteem ak boromam su fekkee ne jàppul door a ñëw sax daa ñëw taxaw ci kanam mbooloo mi noonu rek julli digganteem ak boroomam ki roy ci gannaawam nga xam ne julli gu wér la roy kooku ak julleem wér na moom mi ak julleem feebar nag julleem wér mën naa wér mën naa ñàkk wér sax waaye même bu julli gi wéroon te am yeneen yu ko gaar yu tax duñ ko nangu loola du wàll kenn loola du wàll kenn loolu mooy li tax <coughs> boroom xam-xam yi ci benn xaaya dañuy wax ne laa talaasuma bayna sixati wal qabul maanaam diggante jaamu yàlla gi wér na ak nangu nañ ko yooyu jotewuñ dara jaamu yàlla gi mën naa wér te duñ ko nangu kon nit ki mën naa jiite nit ki jaamu yàlla jaamu yàlla gu wér nit julli ci gannaawam topp ko topp gu wér ñu sëlmal imaam te amul dara dara ci lam doon def ka doon julli ci gannaawam am ba mat sëkk yàlla nangul ko lu tax mooy làmboona yeneen yooyu tax nag duñ ko nangul moom waaye ginnaaw wér na nag wér na waaye su fekkoon ne nag julli ji wérut su boobaa kenn mënu koo roy su la wóoree ne julli ji mu julli yàqu na bu boobaa bu su ko roy yàqu ji rek yaa koy waral yu bari la mën naa yàqu te fekk yow yëgoo ko waaye bu boobaa dara waru la boobaa dara waru la ndax kat yilimaan yi moom mënees mënees su tax seen digganteeg yàlla rek da waaye nit mënu leen contrôler kii jiite nit ki yàlla rek moo ko mën a ko moo mën a xam mbiram li wax ne daam waaju ñëw julli julli goo xam ne col mim sol ni mu rafeteeg melokaan wi ni mu lislaameeg jàng-njàng mu neex a neex a neex bi mu sëlmalee am ko ko jox loo xam ne ah waaye yow de waaye wax dëgg yàlla sa julli gi moom la neex na lool de mu ne ko kon de xaw ma suma jàppoon nu muy demee <coughs> mu ne ko jàppoo mu ne ko de. <coughs> Euh, xam naa. wax waxtu waa ngi continuer bu baax dañu dab waaye nag doy laguñ dal euh, kii day laaj euh, ma xukmu riwaayat al xadis bil maana boo xam ne euh, nit ki da koy solo waaye du indi baat yi nga xam ne moo jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye maanaa yi lay indi lu am solo la mu di nettali xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ne ñi nga xam ne ñooy araab yi doon dégg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn xadis bi nañ ko déggee noonu lañ koy mokkale nettaliwaate ko noonu mel ne kuy nettali alxuraan doo ci yokk xaraf doo ci wàññiw xaraf loolu moom mooy nettali xadiis dëgg moom waaye léeg-léeg nit ki mën naa mokkalub xadis ba mu yàgg yax bi rëcc ko waaye maanaa nga fa yoo xam ne bu ñëwee di la nettali danaan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wax na ci nàngam ak nangam ak nangam nangam ak la ca wax kooku jubluwut a tari xadiis ba waaye sens ba maanaama moom la la jubloo jox kooku la ñu tuddee riwaaya bil maanaa kooku nag dagan na ci muhaddisoon yi waaye nag dafa ami charte daa am ay conditions yoo xam ne su wut du dagan yooyu ba ci jiitu mooy kii koy nettali ci meneen maanaa maanaam kii koy nettali di ko firiwaale kese na fekk xam na làkk wii nga xam ne ci la xadis bi ñëw bu wóor a wóor a wóor na fekk mu dégg xadis bi loola moo koy mën a musal ci maanaa mi mu mën cee yokk dara wala mu mën cee wàññi dara su fekkee xam na ko xamin wu wér ànd ak wattandiku gi mu a wattandiku bu wóor a wóor kon kooku mën na koo nettali bil maanaa loolu nag xëy na sax nun mën nanoo bañ a concerné loolu loolu loolu nun ñii waaye fi mu nuy amali njariñ nun mooy li nuy faral di def daanaka moom loolu lan dëkke ndax mooy xadis bi ngay tiim ci yaxub araab war koo nettali ci geneen kàllaama gudul arab moo xam wolof la moo xam weneen làkk kooka maanaam xadis bi la bëgg a joxe na li jiitu mooy na dégg xadis bu baax na xam lim wax xool ko ci téere sharaa yi bu wóor bu fekkee ne xamu ko ba xam li xadis bi wax bu koy jottali it mu fexe ba tënku ci xadis bi ba lu muy wax lu nekk lu koy leeral lay doon waaye du doon loo xam ne lu koy lu koy wàññi lay doon wala mu ciy dugal nag lu ca bokkut ndax leeral it bokkul dugal ca nag lu ca bokkut na doon loo xam ne lépp lu koy leeral lay doon euh, te na xam maanaam xadis bu baax ndax su ko xamul du ko mën a leeral kon charte yooyu daal mooy daje ñu door a mën a nettali xadis ci kaw maanaam yi. jazakumullah xeyran Euh, jërëjëf ñu ngi sant euh, cheikh docteur Mouhammad Ahmad Lo ci jataayu xam-xam bi nga xam ne euh, wax dëgg yàlla ñépp jariñu nañ ci ndax nekk na jataay bu naat ñu ngi sant itam ñu fi teew rawatina kilifa yi di jiital ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi muy Mbàkke ak Tuuba di sant itam eh, ñi seq liggéey bi te amal jataay bi yal yàlla nangul ñu te jéggal ñu wassalaamu aleykum wa wa barakaatu